nii lépp pare na ngir ñu dem ca mbañ gàcce ya classe yi ñu def bureau de vote soppi xar kanam ñu mën faa nemmeeku ay bulletin de vote ay enveloppe ay list de d'émargement ak yeneen i jumtukaay yuy yombalal bile vote. ñu woo ñëpp ci jàmm di xamal ni seen électeurs yëpp le sept millions d'électeurs yu nekk ci biir réew bi ak bitim réew que ni le matériel électoral fépp fu mu waroon dem dem na fa tournée bu nu def bi tey ci région de Dakar ci cinq départements yi wane na ko. donc matériel bi àgg na fu mu war a àgg bureau de vote yi composé nun ko nun ko war a composé. ci buntu bureau yi ñu taf fa tuuru fukki candidat ak juróom-ñeent yu war a dem ci jongante ya décret bi convoqué corps électoral bi code électoral bi ak affiche bi wone nu ñuy voté. mais en tout cas yaay waaw dafa am organisation boo xam ne day tax rek ñu mën a préparé wu. ci euh, bu dee daal jafe-jafe am na loolee rek euh, mën a fexe rek ba scrutin bi mën a am ci anam yu baax. jëwrin gi ñu dénk biir réew porox ndollu ci biir nemmeeku ngir ñaax électeurs yi ñu dem wote ji ci jàmm ak salaam. élection présidentielle Sénégal yi ñoo ko bëggal seen bopp téyal ko seen bopp ñun luñ ci mën rek mooy yombalal leen ko sécuriser ko mu def ko ci jàmm ku yàlla jox réew mi ñu xam ne jox na ko mu gën ci moom gën ci réew bi ñuy xaar électeurs sénégalais yuy yeewoo ci biir réew mi ak bitim réew ci bañ gàcce ya li ko dalee huit ci suba jàpp dix-huit ci ngoon te sax may nañ leen sañ-sañu jël juróomi bulletin ci place fukki bulletin ak juróom-ñeent yi nga xam ne ni moom la ñu teg ci bureau de vote bu nekk